COSEC comme ni ñu ko xamee euh, liggéeyam euh, li ci ëpp solo mooy lépp luy accompagnement euh, importation ak exportation ah, ñu wéer ko nag ci wàllu transport par voie maritime mooy gaal yu mag yi ba tax na kon expo bu mel ni bu amee COSEC war na mën a ñëw pour jaay image yu dëkk bi ndax Sénégal def na jéego yu bëri ci wàllu port yi ci wàllu également dématérialisation procédure yi ci wàll yëpp. yi nga xamante ne dafa jëm ci maritime ak logistique euh, Sénégal def na ci effort yu am solo ba tax na kon COSEC jaadu na mu ñëw pour wane loolu euh, mais gannaaw wane loolu également COSEC dafa am ay projets structurants ndax COSEC day def ay investissement yoo xamante ne ci chaîne logistique bi la bokk moo tax ba dañuy bi ñuy ñëw aussi dañu indaale les projets structurants du COSEC nga xamante ne dinañ ko mën a gën a expliquer aux partenaires dans le cadre de rencontre b mais li ci ëpp solo également COSEC day liggéey ak ASAPEX pour la promotion des euh, exportations du Sénégal ba tax na am na benn thème boo xamante ne COSEC moo ko war a animer le 18 euh, sur le Sénégal euh, port porte logistique de l'Afrique maanaam Sénégal buntu wàllu euh, lépp lu jënd ak jaay n'est-ce pas pour Afrique pour Afrique te buñ fa buñ ci tolloo dinañ gis bu baax jéego yi Sénégal def ci fànn yëpp euh, déjà forum boobu nga xam ne day am le dañ ci invité wàlle douane port anam Gaindé 2000 Kosama ak COSEC ñu fas ko yéene def n'est-ce pas pour gën a jaay image wu sunu dëkk ndax bu ñu fàtte ne ñu ngi jëm ci zone de libre échange continentale africaine Sénégal war ci jouer rôle bu am solo bu am solo tey jii li ñuy def ci wàllu port xamee portu Ndayane portu Bargny Sendou ak port secondaire yi u portu nga Foundiougne euh, Ziguinchor Saint-Louis Kaolack li ñuy def ci fànn yooyu yëpp ak li ñuy def ci ginnaaw port yi maanaam dañuy faral di wax ne la bataille du maritime se gagne à terre li ñuy def ci wàll ci suuf si également ci jéeri ji euh, aussi ñu gën ko fësal ndax euh, Sénégal bunt la pour Afrique ndax marchandise bu Mali fi lay jaar ak marchandise dëkk yu bëri. waaw déjà ci wàllu dématérialisation bi yombal nañ ci lu bëri ndax tey jii COSEC am importateur sénégalais yëpp mënuñu dédouaner seen marchandise te dafa ñu benn formalité bu ñu tuddee BSC. boo doro de suivi cargaison loolu COSEC moo koy def mais tey jii dématérialiser nañ ko bu yàgg tey jii euh, téeméeri importateur yoo jël mun naa ne juróom ñetti fukk yi muy quatre-vingt pour cent yi euh, déplacé tuñ sax pour ñëw COSEC mën nañ ko def seen biir kër ba def paiement électronique bi sans ñu déplacé loolu ci wàllu dématérialisation la waaye également euh, Covid bi li mu gën a wane mooy il faut que yi gën a góorgóorlu ci seen transport maritime maanaam bateau yi jóge Sénégal dem ci Guinée dem ci yeneen dëkku Afrique euh, COSEC gannaaw actionnaire la ca COSAMA COSAMA bi ngeen mooy def Dakar euh, Ziguinchor bi mais yéen ñoom Aline Sitoé ngeen gën a xam ak euh, Agen ak Jamboj mais COSAMA am na ay bato cargo bateau yoo ne marchandise rek la ñuy def bateau yooyu par exemple ñooy transporter ndaamarasu Casamance bi te yooyu sunuy bato la ñu moomal ko sunu bopp yoo xamante ne mën nañ jël mille ton boo boolee ñaari bateau yi nga ne ñu ngi def ci liggéey boobu liggéey expo bu mel nii. day gën a dëgëral li nga xamante ne moo xew ci àdduna bi ndax marchandise yu ëpp ci àdduna bi bato yi koy yóbbu ñoo koy yóbbu ñoo koy indi. ba tax na Dubai port boobu ngay wax nga xam ne partenaire stratégique bu Sénégal la ndax portu Ndayane bi sax Dubai port mooy partenaire stratégique bi ñooñu dañuy am ay investissement yu ñuy def yoo xamante ne dëkk yëpp a koy soxla rawatina donc Sénégal ndax Sénégal comme ni ma ko waxee sànq ambition bi président de la am mooy fexe ba Sénégal nekk li mu tuddee un intégré sous régional maanaam tey jii bu ñu nee ëpp mooy béréb boo xamante ne euh, lépp mën na fa daje maanaam marchandises yi mën nañ fay daje di dem ci yeneen dëkk marchandises yi mën nañ fay daje ñu transformer ko mu doog a yéeg dem ci yeneen dëkk yi. moo tax investissement yooyu ñu ko def ngam xam Sénégal guleet ñu état defar port yu bees tàq yoo xamante ne c'est pas des ports hérités de la colonisation portu Bargny sendu poor bu bees pull lay doon boo xamante Sénégal moo ko defar un partenaire privé pooru dubaay port bi Ndayane bële port bu bees tàq lay doon boo xamante ne Sénégal ko defar avec dubaay port mu wuteeg donc port yi nga xamante ne xëñ na dañ ko héritage colonial la man bu dee transformé nañ ci yokk nañ ci et cetera comme portu Dakar nga xam ne 1857 lañ ko créé woon donc mu wane lan mu wane ubbeeku bu bees boobu ci wàllu logistique ci wàllu koom-koom euh, il faut que sénégalais yëpp comprendre ko mais nag logistique boo koy wax. foo jaar wax multinational foo jaar wax partenariat foo jaar wax ay investissement yu am solo yoo xamante ne euh, Sénégal euh, foo mu profité ci expo yu mel nii pour gën a wane li muy def bu wanee li muy def ba pare wan yan jéego la war a jëm te président public euh, noonu la ko bëggee moo tax na structure publique yi ak ak secteur privé yëpp dañ ci war a liggéey ensemble